bu doon mën na ma def noonu mais lépp ci kaw tuuma la loo xam ni yàlla seen na ko dara mu ci yàqub diggante bëgg a tàggal ay nit moo tax nga doxale ci ay wax te yàlla moom ko ma xam ni dara mu ci moo tax kenn mu wax leen ma leen alhamdulilah bu doon man it ma noonu parce que ku ma wax lii dama jàpp ni dëgg la mais boo defee ndànk tuuti di nga gis firnde ji la wanal ni dara du ci dëgg bëgg na dox diggante nit ak nit la parce que bu ne ko yaay conseil nga ne ko doo conseil bu ne ko bourse familiale nga ni dindi naa ko nit ñëw ni la maire ko dindi loolu du neex nit du neex kenn te maire defu ci dara waxu ci dara yëgu ci dara parce que kii dañ ko defoon ci liste bi conseil yi dox bu kenn génnee dafa am ko ci topp dañ koo bind ba pare kooku mbindeef mënu koo changé mbindeef mënu koo changé mais bu ñu ñëw ne def na ko sa jiboo ko dindi te jiboo amul baat nga yor baat ba loolu ay waxi caaxaan la parce que def naa fa lum dindi bu la nee conseil nit mën na koo dindi amul buñ ko xasee bind faatu rek a koy dindi walla yow sa bopp nga démissionné wala nga tardé ñu rapport la loolu te loolu àggaguñ ci kii maa maaga ñun ko sa bourse familiale jiba moo la dindi te nee na ma ka nekk cil ma xam mi ngi koy man ko kon bu ma ko mënoon man bus yi tànnuma validé wu lenn laa ci am bu nee Pekes am na juróom-ñaar téeméeri nit ma ne woo leen borom dëkk yi séddale leen ko dëkk bu ci ne mooy tànn ba su indi ko bu indee dugal leen ko ci noonu yóbbu ngay enquête nag ñooy jël walla ñu dàq man duma fa ne duma fekkee du ma du ma jël du ma fekke du ma dàq tey nag li ma bëggoon mooy nu waxtaan da ngeen gisul leen naqari ci jibo ba mu leen ànd ak moom wala da leen a doyul wala daa tegu seen dëkk fenn loolu laa bëggoon waxtaane ko li tax daal ñenn ci njombo awma leen loolu laa bëgg a